tey dañuy waxtaan rek maam Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu ma ne la doy na septième taan ñu ne Seydi Hadj Malick moo jur Seydi Ahmad si moo jur Sëñ Babacar si moo jur Cheikh Al Hadj Mahamad Mansour doy na septième taan ñu ne Seydi Hadj Malick mooy bàyyu Mawlaay Dabax Malick doy na septième taan si ñu ne Seydi Hadj Malick moo jur maam Cheikh Al Hadj Mahamadul Habib waaye doy na sëkk sëkk kéem taan ñu ne Seydi Al Hadj Malick mooy maami Seydi Jamil borom Fass ki nga xam ne ba mu duggee Fass ba keroog ñu koy dugal ci biir bàmmeelam raw doom boobu mës ta génn Fass kooku doy na sëkk ñu ne alaaj Malik mooy maama doy na sëkk kéemtaan bu fekkoon alaaj Malik dañuy waxtaan kéemtaanam doy na sëkk ñu ne Seydil Hadj Malik mooy maami Serigne Mansour borom daara ji doy na sëkk Serigne Mansour borom daara ji nga xam ne moo toogoon ci daaray maamam daan atte masala yi kenn mosu koo gàgganti moom Serigne Mansour borom daara ji te ku mës a gàgg mu gàgganti la doy na sëkk ñu ne cër bi bu fekkoon yéeme day am ci alaaj Malik ñu ne doy na sëkk kéemtaan sëñ mën alaaj Malik sëñ Mansour kuy samaam ñu ne Seydil Hadj Malik doy na sëkk kéemtaan ci Seydi Hadj Malick maam El Hadj Malick Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci almaktoum mi nga xam ne moom rek moo ma sa taxaw ne si yonent Yàlla Isa alayhi salaam daldul naa ko mbusam durom ben werr doy na sëg kéemtaan ñu ne kan moy mami Serigne Cheikh mi wax lolu ñu ne El malik Malick Hadj malik radiyallahu taala anhu doy na sëg kéemtaan bu fekkoon ne dañuy waxtan El malik Malick ci kéemtaan doy na sëg sëg kéemtaan ñu ne rek Serigne Abdou Aziz Al Amin mi nga xamante ni moo fi nekkoon muñ kat nekk fi ambassadeur waaye nekk fi capitaine ci tarixa bii di tarixa si Cheikh Sidi Ahmed Tijani waaye nekk fi capitaine ak ambassadeur waaye nekk fi représentant maamam Cheikh Sidi Hadj Malick toogal fi ay wëjuram ay baayam tabarakallahu wuut ay magam waaye euh, euh, toog toogaayu jàppale ak dimbali ay magam ak déggal leen ak tabarakallahu jàppale leen lolu doyna sëpp ñu ci Abdoul Aziz Al kuy mamam ñu ne Seydil Hadji malik jub lol mom si Abdoul Aziz Al bari xam-xam lol am fulla lol am fayda lol am taxaway lol koku Seydil Hadji malik moy mamam doyna sepp sëkk bu fekkee kéemtaan rek la ñu ne ci Alhaji malik moy mam seydil Abdoul Aziz Al Amine doy na sëkk ci ñu ne Seydil Hadji malik moy maam Serigne Babacar si Mansour ki nga xamanteni le silence est une arme Serigne Babacar Mansour ni mu ne tek noonu la mësa ne tekk nii mu ne dégg noonu la mësa ne dégg nii mu yaroo dal nii mu jàppe ñàmburam ni mu màndoo ni mu jube ni mu dëggoo nii la mësa mel ba mu tabarakallahu doone suñu Babacar Sy Mansour ak fii ko yàlla range garaati xilaafa Seydi Seex Ahmad Tijaani Chérif na mu meloon ba tey jii noonu la mas a mel Mawlaana Chérif la du changé du soppeeku mu suñ Babacar Sy sëkk kan mooy sa maam ñu ne alal na doy na sëkk kuy ñu ne Seydi El Hadji Malick kon ko sëkk sak ko sëkk kéemtaan bu doon dañuy waxtaane kéemtaan lan mooy kan mooy maam yi suñ Babacar Mansour ñu ne El Hadji Malick mhm. doy sëkk kéemtaan bu doon dañuy waxtaane El Hadji Malick ñu ne Serigne Maodo si wala Sidi Ahmad si bu sëñ kër si kan mooy maamam ñu ne Sidi Hadj Malick si radiyallahu taala Sidi Ahmad ca dal ja Sidi Ahmad ca noppi ga Sidi Ahmad ca yaru ga Sidi Ahmad ca dégg ga tegg ga rag jukkuy bàyyam ya si euh, sëñ euh, Babacar si radiyallahu taala doone sëkk kimtaan ñu ne alaaj Malick mooy maamam doone sëkk kimtaan sëñ Maodo si kuy maamam ñu ne alaaj Malick suñ Maodo si ñi nga xam ne moo ne raaytu rasulullahi jëhratan wa yaqzatan laa mën a man déedéet laa mën a man nekkul di nelaw di waxul dama jënt yonent bi dane dama gis yonent bi jëhran ci samay bët yi man Maodo si man Maodo si yéen a tax man Maodo si noonu la koy waxee moom sama bàyyi waaw sunu bàyyi la sunu sëriñ la sunu sang la na ma ko waxee ca woyoon waaw woyoo ja tabaarakallah yàlla na ko yàlla doole taxaw doole guddal fanam sunu wajur woowu ma ne doy na sëkk kéemtaanu alaaj Malick ñu ne Serigne Maodo si moomu surtout alaaj malik la bari xam-xam lool borom xam-xam beeg yar bi papa Abdou Aziz Mbaye sax da koy woy ak mboolem woykat yi di koy roy maa ngi nuyu mboolem kuy nab yéen mboolem kuy roy rek tabaarakallaahu papa Abdou Aziz Mbaye di roy bàyyi dut kenn mboolem koo xam ne rek yaa ngi woy tagg Sidna Muhammad ñu ngi lay nuyu di la bëggee waaw te di la kontaane wallaay ndeysaan ñu ngi lay nuyu di la bëggee te di la kontaane di ñaan yàlla yal na yàlla jàppale ñëpp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ma ne Seydi Hadj Malick su fekkoon ne rek. kiimtaan loonu koy waxtaane loolu day na kiimtaan. mooy ñimu njaboote.